basuma basuma mbare baas yi numéro alif lam lam asaxeer décortiqué d'abord je vous reviens parce que Pape Alé Niang est déjà passé là je vais vous revenir pour vous expliquer réellement explicitement ce qui se passe pour le Gabon je ne suis pas à l'euphorie car beaucoup de frères africains m'ont appelé depuis le Gabon pour me dire que papa comment t'as fait non je n'ai rien fait là où je suis je reçois toutes sortes d'informations que ça vient du Gabon Afrique de l'Ouest Afrique centrale partout je reçois toutes sortes d'informations raison pour laquelle le lundi j'étais sûr à 100% que la bongotisation est finie mais finie pour quel intérêt Et nos peuples, les peuples africains qui étaient au Gabon, étaient complètement dépassés par ces événements. Parce que en vous, peuple gabonais, quand les institutions gabonaises font ce qu'ils veulent, comme en 2016, quand les institutions gabonaises ont volé les élections, peuple gabonais, au lieu de détruire vos institutions, au lieu de vous attaquer à la police, mais non, vous vous êtes attaqué à des intérêts privés. Oui. Vous vous êtes attaqué aux étrangers qui ont investi là-bas. Est-ce les étrangers qui ont voté Est-ce qu'il y des étrangers juges ou des étrangers policiers ou gendarmes Non, à ce que je crois. Aujourd'hui, vous avez fait votre boulot, vous Gabonais, et vous avez vu. Ces mêmes étrangers que vous en mal en 2016, qu'est-ce qu'ils ont le jour des élections, ce dimanche 26 Qu'est-ce qu'ils ont fait Toutes les boutiques, toutes les boutiques sont vidées. Il de marchandises dans les boutiques. Parce qu'il y les événements de 2016 qui sont toujours là, qui sont dans leurs esprits. africain africaines, il faut qu'on se réveille, il faut que nous nous réveillons. Quand les institutions déconnent, c'est les institutions qui sont considérées comme la France. Et non, nous le peuple, non. Quand les institutions fautent, il faut sanctionner les institutions. Et non, nous frères africains, non. Et là, quand j'entends des politiciens, pour vouler les Sénégalais, Il y a l'Union européenne, certes, mais en France, il y a des cartes de séjour français, carte de séjour belge, carte de séjour allemande, carte de séjour espagnole, carte de séjour italien, carte de séjour turque. Et pourtant, ils nous disent que c'est l'Union européenne. Nous, en Afrique, on va faire l'Union africaine. C'est-à-dire Une union mal calculée, encore une fois, vive mon jeune frère, le colonel Assimi Goïta. Longue vie à toi. Gloire à toi, mon frère. Gloire colonel. Gloire à toi, colonel Assimi Goïta. Tu avais très tôt compris. Tu très tôt vu ce qui va venir, ce qui allait se passer. tu as très tôt su que dans cette Afrique que nous sommes, pour monter une vraie union, il nous faut d'abord faire qui, le recensement des étrangers, le recensement des vrais fils de ton pays, le recensement des fils natifs de ton pays. Ça, sur la constitution, sur la nouvelle constitution malienne. Le point là, ça m'avait un peu intrigué. Oui, ça m'avait un peu déboussolé, un peu. Mais aujourd'hui, en voyant ce qui s'est passé en en voyant ce qui, ce qui se passe actuellement en Afrique, en cas de problème, les peuples s'étapent. Pourtant, nous sommes tous noirs. Ici, en Europe, dans la diaspora, nous sommes unis. on fait une seule force africaine. Pourquoi vous qui êtes là-bas, chez nous, pourquoi vous ne pouvez pas vous comporter comme nous Mais non, il toujours des pro-Ouattara, il y a des pro-Bongo, ya des pro-Maké, il a des pro-Alpha Condé, il des pro, il des pro, des pro, non. Les jeunes, réveillez-vous. Vous êtes assez jeunes. très intelligent, bien instruit. Vous avez des capacités, vous avez la carapace pour diriger l'Afrique. Les retraités ne peuvent plus gouverner. Non. Force à la jeunesse, oui. Force reste à la jeunesse. Là, je faisais mon sport. Et nous sommes le mercredi 31, je faisais mon sport. Là, nous sommes le jeudi 31 du mois. Là où Pape Alenia a compris que nous sommes dans un combat multipolaire et non dans un combat unipolaire. Le combat la ça va, ça va prendre n'importe quelle envergure. Tout ce qui est bon pour combattre, on va le faire. Africains, Africaines, réveillons-nous encore. Le Gabon pense s'en sortir. Mais il fut des temps, c'est la France même qui faisait des coups d'État. C'est la France même qui imposait ces marionnettes militaires Comme au Tchad, qu'est-ce qui s'est passé Il une marionnette militaire du nom de Djabi qui Déby fils, Mamad Déby, qui est pire que Idriss Déby. Il y Denis Sassou Nguesso qui sur la liste. Paul bia qui sur la liste. Omarou Embalo qui sur la liste. Adama Barrow qui sur... Tous les présidents qui siègent à la CEDEAO, qui siègent à la CEDEAO, doivent être défaits et sont à refaire et à enterrer vivants. On ne veut plus de ces vassaux africains. Non, on ne veut plus. Pourquoi Macron ose nous manquer de respect, ce petit pénis Pourquoi Macron, ce cul noir, ose nous manquer de respect ose parler comme si les Africains étaient ses enfants. C'est très logique. Nous avons des gouvernants qui sont nos interlocuteurs directs et qui sont des voleurs. Quand ils viennent ici, ils dorment sur des hôtels 5 étoiles, là où ne peut pas dormir un ministre français. Ce que achète Amadou Sall, un ministre français ne peut pas l'acheter. Je ne vous dis pas le fils de... Un ministre français ne la marchandise que ce paie Amadou Sall ou Marem Faisal ou Farbagom, le griot du président. Ça, un ministre français ne peut pas se Donc on avance. Vous voulez que Macron respecte ce petit pénis de merde-là Vous voulez qu'il nous respecte Comment il va nous respecter Si nos interlocuteurs sont des bâtards, comment il va nous respecter Pape, allez Nous sommes dans une guerre et dans une guerre chaude, qu'on la vaille ou non. On vous dit guerre froide, guerre armée. C'est faux, il n'y a pas de guerre armée. Toutes les guerres sont des guerres. Il y a guerre froide, guerre chaude. Guerre armée, c'est une autre chose. Au Sénégal, nous sommes dans une guerre oh, oh de tourbillon. Et il faut qu'on gagne cette guerre. Depuis le premier jour, je vous avais dit que Sonko avait prêté le flanc. grève de la faim peuple africain Sonko est en train de subir quelque chose qu'aucun opposant n'a subi anémie insuffisance rénale maintenant il a des problèmes cardiaques ce que je vous disais sur sa partie gauche sa main gauche commençait à trembler ainsi que l'œil gauche commençait à taper. Maintenant, ça a pris une autre tournure. Dieu veut la vérité. Les médecins qui sont à la réanimation de l'hôpital principal ont fait savoir que d'ici 48 heures, si la situation ne bouge pas, même d'ici demain, si la situation ne bouge, bouge pas, comme je vous l'avais dit même si on libère Ousmane Sonko il sera sorti en mode légume comme on le dit dans l'armée on te fait en mode légume là Ousmane Sonko est en d'être paralysé mu ngi am paralysie côté gauche am dëgg neex yàlla kenn ma fat s'il sort s'il marche avec des béquilles nous tous on a s'il sort et médicalement il ne tient plus debout nous tous on aura tort s'il sort sans ses facultés mentales ni ses capacités mentales on aura tort s'il sort sans ses deux reins on aura pourquoi on aura pour le soigner d'urgence, il va falloir qu'on l'évacue. Et ça, sera pas la solution pour Ousmane Sonko. Il y en a des millions sur le Magal de Touba. Depuis l'autre jour, on vous le dit. Vous donnez des millions. On donne des mille. L'État prend nos combattants, il les ramène là où ils veulent, à la L'armée à organisé des colonies de vacances Vous n'êtes pas au courant. L'armée nationale a organisé des colonies de vacances. Ce que Macky Sall avait supprimé en 2012, l'armée a repris cette année. On nous a bloqués de partout. Ce qui fait que là, on combat, mais à travers des sabotages. On va combattre, mais à travers la soncorisation. Tout bas. Macky avant-hier, il devait venir en France. Tout le monde était prêt à en découdre avec lui. Maroc, retour Sénégal, Touba. Jérôme. <coughs> Jérôme Bagnakake. yéen Baay Faal yi jël seen yére abal ko ñii ngeen ko abal di ay waay takku der di ay homme de tenue suba wala gannaaw suba bu fi Macky Sall jaaree ñoom ñu way ne Sonko na mën naa la ñii sol ay njaxas comme yéen dóor ay xale rey leen ci tuur ay Baye Fall ngeen bëgg ne kenn du wax si yoon bi pourtant kenn du wax si yoon bi te tey li fa dugg pil si renseignements généraux mat deux cent si ngoon si booy yi dañoo wër a wër a wër ba mujjee jàkkaarloo kenn ki mu nekk Baye Fall type ñu ne ma grand nii la fa demee effectivement déguisement Baye Fall yaa ngi fa fees jël pour di xaar kuy sonkoriser Touba. yéen la jeunesse dara laa leen di ñaan xeex day bëri façon. mais koo fekk biir këram xeex ak moom mu gañe la day yomb surtout bu amee ñu koy jàppale. code bi mooy corniche Mbacké corniche Mbacké code bi mooy sonkoriser l'arrivée de Macky Sall il faut tout sonkoriser à partir de Thiès il faut tout sonkoriser Thiès ngir yàlla participer Thiès bàyyi leen affaire sekk défaillant yi. xam nga Thiès am na arrêt Diop défaillant léegi nag am na Thiès mooy seen boulevard bi ngeen di kii la promenade des défaillants Thiès xanaa nag suba di ngeen taxaw seen promenade bi wane ne vous n'êtes pas des défaillants Thiès réagissez vous n'êtes pas des défaillants réagissez Sonko va mal il faut qu'on attaque màggal ou pas on va manifester vendredi samedi màggal ou pas on va manifester vendredi samedi. combat bi nag daax am foo xam ne biñ fa toll dafa bëri woon tóob maa ngi toujours ci bi de daa am nga xam ne dafa bëri woon tóob moo tax Pape Alé Niang màggal gi vendredi samedi dañuy manifester. ba am na tóob yi nekk fii France daan publier te yéen ngeen ne da ngeen di dem màggal Touba. xanaa nag war ngeen mun def délégation dem ci sëriñ bi dem ci sëñ Muntaxa ne ko Mbàkke mu ne waaw nga ne ko ah ñiy jóge bitim réew ñi jóge tugal di ñëw sëriñ Touba andiw leen non astafurlaa du mos Macky Sall andiw leen Ousmane Sonko andiw leen Déthié Fall andiw leen Tahirou Sarr andiw leen Mimi Touré andiw leen kenn andiw kenn andiw leen sëriñ Touba moo leen andi est-ce que am nañu kon droit ñu wàcc aéroport ñu jàpp leen ndax ñoom dañoo contre Macky Sall dañ doon manifester est-ce qu'ils ont ce droit non pourtant murit yaa ngi seetaan ñëpp a ngi seetaan ñenn sax ñu ngi koy bàkkoo ça y dans la presse sëñ Bass Abdou Khadre yëg na ko pour lan affaire bi yeggul ci kaw. Touba nag ñu ngi wax yaa ngi ni dëggër bopp <coughs> sëñ Saliou Thioune maa ngi wax di waxaat man moom nee naa leen moom. <laughs> crime rek maa leen ko gën ñeme lu fa dal Touba lu fa mënti xew du suñu responsabilité yoon bi nag oto bu fa bënn man la je l'assume yi ñu toj yaa ngeen koy nëbb di ko nëbb di ko nëbb ba tey am na ku ci def vidéo un certain Ali xaw ma naka xaar leen man moom daa am ñoo xam ne moom gain Waly Diouf ngandam tóob la États-Unis la nekk xaw ma fan la nekk ngandam tóob la jaay na boo yu bëri si internet bi nee naa leen ku ciy nga nekk kaaw fii je te publier naa tey photom sama page Facebook koo koy Waly Diouf ngan di fi tóob à ma grande surprise xaritu xaw ma ban doomu ministron la dagg sama vidéo ne na Guy Marius Sagna wax mooy keroog bi Guy Marius Sagna defee conférence de presse bi ne tuyaux yi ñu toj c'est pas normal bien public la ba ma ñëw ne ko nday ndey Salamine sa yoon nekku si waroo ci woon sax wax ndax si combat lañ nekk ku nekk si combat am na yenn yi xoola gëmmal Macky Sall ngi rey nit ñi sànni leen si géej gi Macky Sall ngi def lu ko neex te kenn waxul loolu ngeen waroon wax je signe je persiste yow ak gii laa yemale gii dafa commencé politique moo tax gëmatum ko yéen ñaar laa yemale man kuy politique moo may xoola ku ma wul kaa ñu xeex wala ma toj antenne wala ñu dóor pale bi kër naat mu toj ñu naan ma ay war leen ko def ak institution la quel genre d' institution on a respectons-nous quand même du yéen topi silence allez chercher quelque chose à faire allez chercher quelque chose à je vous en prie tey def naa ko manifestation Youssou Ndour benn George Floyd américain dee comme Youssou Ndour du ma leen nëbb moom Illuminati la moom moo raw ñoom Macky Sall ñi ay garaat moom ci affaire franc-maçon moom je ne vous le cache pas moom américain la c'est un anglais Youssou Ndour fi mu bokk ñoom Macky duñ fa noos si George Floyd ñaata tànkam la teg tegul tànkam moom démonstré fépp man waxuma la George Floyd ñun quatre-vingt-cinq morts léegi ñun bu ñuy manifester nañ teg ñaari tànk yëpp war a ne ñun suñuy morts ñun Sénégal ñun jeexal nañ on a fini on a seen nombre de morts bu ñu neexee sukk def laay rien que pour la mémoire de nos morts xeex bi foog ñu jëlee ko façon ba présent façon ba félicitation la diaspora yéen ñi nekkoon tey yëpp ci kaw félicitation la jaspora lenn rek laa leen di bëgg xeex bañ xeex te vendredi samedi ñu ngi pare parewaat takkarnaasel bagages yi day takkarnaase te foog mu takkarnaase comme niñ def weekend bii passé policiers yeeg gendarme yi foog ñu liggéey loo ñoom nag ñooy màggali ah ñun dañuy xeex ku màggali yaa xam ku màggaliwul yaa xam ñun dañuy xeex yéen ñuy dugg fii kaw ku dem ñu jàpp la ñun dañuy xeex sincèrement dañuy xeex waaw taluñu ay màggal ak yooyu dañuy xeex li ma leen waxoon rek kaso bi gaa yaa ngi gën a jàpp ndekete ku leen ni li fa nekk lii la ci prisonnier moment bi sincèrement romb na 1200 ku leen ni lii mu romb na 1200 di dem ñun dañuy xeex ndax dañuy génnee ji ñooñu. Casamance bëggoon nañu màggal si mais xam nañ ne bu ñu màggal si daañu jàpp ñu bëri seen Baay Faal yi daan nañu màggal si ñun dañuy xeex te yéen xam ngeen ne dañuy xeex barki Sëñ Tuubaa dañuy xeex. vulcanisateur yi maa ngi waxaat rek gars yi dañuy xeex xam naa bu baax lu may wax dañuy xeex. remobilisation bi kenn mënu ko tere waxaat. mobilisation bi des troupes kenn mënu ma ko teree waxaat gars yi génn leen ñu daje xeex li mu jeex. lii ngeen di wër ñu tëj seeni doom ngeen di wër kër sëriñ si di ñaan njekk Macky sàll gëmul loolu taxaw di wax di ko rafetal Macky sàll gëmul loolu. am ñoo xam damay wax comme ku si mel ne Aliou Diouf seytaane boobu naan ma lan Sonko fu mu toj mën na ko yow fan la Macky toj. non Macky Sall moo defar lan lan lañ ma wax stade ba ma ne ko waaw d' accord Macky Sall moo toj jam ñaado waaw d' accord naa def fa centre Abdou Diouf def fa stade waaw mais Macky moo toj justice façon toj boo xam ne Sénégal moment yi mooy peuple boo xam ne c' est boo xam moment bi soxlaatul armée defal ko coup d' état Sénégal la dal Macky yaa toj loolu li nga toj ci institution def ko ci kaso bi mosul am ci histoire Sénégal li nga def nii ça n'a jamais eu fu Macky Sall toj Macky Sall toj fen Macky Sall toj toj mille milliards séddale ko gars yi jënd ay armam Macky Sall rey ñi ay nit nii froidement ak ñun Macky Sall bi ñu xamoon ngeen ne ma fan la Macky Sall toj yéen kon ay stade Diamniadio ngeen may su suñu mille milliards yi nag procès Mame Mbaye Niang bi nag nit ñi ñu rey nak su ma waxee kilifa taw yi non faut respecter y' a pas de militaire au Sénégal y' a de gradé oh, les hommes de troupe je vous lance encore un appel solennel Afrique yëpp ñu ngi leen di saaga et c'est normal Sénégal ñu gradé yëpp France moo leen di former Saint-Syrien lañ suñu généraux yi ay Saint-Syrien lañ boole ci complexe qu'ils sont dem leen kër yët naa yi ndaw ndawaan yi waxuma leen kii de. les jeunes lieutenants la même seeni kër seen doom yi ay français la ñuy làkk français te tubaab fi yow boo juree sa doom hôpital bambara ak yaa muntu yam dañ la naan fexeel boo wax xale bi langue maternelle am bul ko wax moom français. oh quel complexe de la part de la peau noire non c'est la merde da ngay dajeeg malien doomam juddoo fi yaroo fi su làkkee français nga ne juddoo fi nga dajeeg sénégalais doomam nekk si papa Cheikh du ma mos a d'accord ak yéen jamais de la vie wala nga dajeeg ab sénégalais mu ànd ak doom bu ñuul kook tun gi ñuul kook papam ñuul kook mun la déggul wolof kelont ñooñu noonu genre boobu noonu xeet boobu noonu soxlaatuñ leen ci manifestation yi balaa ngeen génn manifester changé leen seen biir kër soppi leen seen mentalité doom yi war leen ay africain ngeen vous méritez d'être des noirs am ngeen langue maternelle mais moo xool moo bon ci Europe bi ak ñun immigré déraciné yi xam nga lan mooy seen plaignant moment bi fan mooy suñu terre où est notre terre nous les immigrés vous savez que un immigré si tu fais plus de cinq ans plus de terre boo ñibbee sa dëkk boo leen demee Sénégal lan lañ lay wax kañ ngay ñibbi boo ñëwee fii ne fii amul dund kañ laay dem vacances fan fa fan lañ dëkk suñuy doom màgg fi ba am 18 ans def toj-toj tubaab ne da koy dàq réew mi ban réew la koy dàq te xale bi ban culture la am. kañ la xale bi nekk sénégalaise kañ la nekk ivoirien kañ la nekk malien noir nit ku ñuul ni ñu jël complexe teg ko fële xeex bi ku am looy sikki sàkk wala looy complexe xoola on te dépose à côté ku yaakaar ne nous les africains on ne peut pas ngir yàlla rek bu ñëwati suñu xeex xaar ñu tuuti ku yaakaar ni xeex bi xeexu parti politique la toogal xaar ñu tuuti ndax Pape Alé Niang moment bi mu ngi koy gouverner à la place de Ousmane Sonko kon nu ne sommes pas des politiques dañ ñëw pour mbëkkante pour defalaat Sénégal jëriñ réew mi jëriñ suñu askan. te yéen jeunesse bi yéen rek a ci mun jàpp seen détermination seen dévouement gars yi foog ñu xeex xeex bi mu jeex. foog ñu xeex xeex bi mu jeex xam naa lu may wax ba ay jënd pistolet booleen leen ma jëndal leen sànq am na bu ma gis mais dafa yéeg man mamaay ragalatuma dara xam nga mamaay man lan laay ragal. xam nga la lay ragal suñu officiers yi jël xale yi yóbbu leen Casamance li ñuy waajal nii bu ñu attaqué Casamance xam leen ne ñàkk nañ te ñu ngi ci màggal gi la ñuy xaar mu passé ñu ngi déployé booy yëpp di leen yóbbu Ziguinchor luy seen yoon si protéger bi xam nga loo leen war def jël armée gambienne delloo leen seeni i ngànnaay génnee fa ECOWAS te bañ dem taalaat Casamance naan ay Casamance dafa kii pour mën a dugal parce que lan yaa ngeen ni waaj a dugal délégation spéciale suñuy meeru Pastef ndax lan nanguwuñu plan B Pastef waxati naa de que de comme nanguwuñu plan B bi ay délégation spéciale dina commencé dal te xam nañ ne nag xeex bi fu mu jëm ni service de renseignement ils ont très bien informé Macky xam nañ ne dañuy xeex ba tax na fii tam ñun ñi di live je ne vous le tous man moom sama booy gendarme il m'ont averti booy vous perdez votre temps bul génnati billahi bu makki ñëwee c'est man maay diriger combat bi fii France maa leen wax li maay diriger fii combat bi bu direct de touriste c'est moi qui dirige kooku moom j'assume et je prends l'entière responsabilité barrière bu policier yi teg xam nga bii passé ñëw nañ génnee ñu lacrymogène bi <laughs> bu ma connaissé mal man su ma ñëwee policier yi dinañ liggéey par force Macky bu la neexee dóoral bal blanc bu la neexee dóoral bal bal réel fii France la boo dóoree bal xoola raison d'état lañ koy def entre ñun noir garaawul ndax man xam naa ne métti metti yaag sa ñi nga àndal kum si jekku dinaa la defal bagage mission bi nag ki ko jox jaram fàttalikul ne sa mag même iste bu Macky Sall bi moo ko rey Libéria ah, booy fils fàttalikul de ton grand frère de même père et de même mère bañ a kii comme toi fa la dee mission Libéria wax nañ la cause morom mooram armée sénégalaise lu bëri mission lañ koy réglé lu bëri Casamance lañ koy réglé yéen jeunes yi di ngun ngu ni bañ dem guerre yi am na officier yu leen boole Casamance la ñu ni yóbbu booy su moytuwul seeni morom ñoo leen di baaraam avertir naa leen nag xam leen bu baax code bi mu leen jox tey l'armée sénégalaise les hommes de troupe y a pas y a pas quatre mille officier sur trente sept mille hommes kon xam naa lu may wax su ma ne homme de troupe yi ñooy jël seen responsabilité te armée bu weesoo caporal sergent keneen ku fa taxaw complément nga officier bu fetal yi sabe sabe sabe sabe sabe sab day puub tubayam ndax day xalaat ñaari jabaram yéen les jeunes intellectuels qui avaient intégré l'armée sénégalaise yéen les jeunes qui avaient compris siffler la fin de la récréation. Car la population sénégalaise compte sur vous pour rétablir la justice, mais pas l'ordre. Parce que nous sommes déjà dans le désordre et c'est déjà trop tard avec 85 morts. On ne peut plus vous applaudir, on ne va pas vous applaudir. Moi, je ne ferai pas partie des gens qui vont applaudir l'armée sénégalaise. Non. S'il tue Macky Sall, oui, si on me dit qu'on a exécuté Macky je vois son sang, oui. Là, je vais jubiler à travers tout Paris. Là, si vous voulez, même si vous me convoquez pour me mettre 10 ans en prison, je rentre. Et j'assume. Mais faire un coup d'état, je vais sortir jubiler, non. Le sang de Macky Sall, oui. Vous savez ce que je veux Préparez-vous nag et sortez en masse vendredi samedi bi gars yi il faut qu'on libère Sonko quel que soit le prix à payer commencé na du ma sax wax xëy na suba di ngeen ci jot commencé na am paralysé damay ragal Sonko génn doxee beeke booy réparer rein yomb na de mais problème neurologique ba ma leen waxoon bët ba loxo bi commencé nañ gis paralysie carrément ba ci tànku gauche bi commencé na bàyyi pour muy clair xiif moo koy def ndax dafa ñàkk lekk perfusion munu ci loolu dara paralysie bi c'est normal parce que c'est fini xiif moo koy def boo leen yaakaaree avocat yi billaay maa ngi wax rek am na ñu naan na avocat yi waa na avocat yi liggéey man xaar sax ma noppeeti balaa ñu naan ma Pastef y a des voies autorisées parce que da ngay wax ba pare am ñu la woo su suuf des soi-disant sous responsable naan la Pastef y a des voies autorisées te buñ leen bàyyi xeex bi yéen nii ngeen surux no man daal politique bi iñaan iñaan ak si sécurité li bi si nekk laa comprendre les gars regarde jàpp leen si xeex bi ñu génnee suñu état d'âme yi gagné ko si vite fait ça sera vite fait le combat là ça jàppale leen booy am na booy yoo xam ne mënuñu dem màggal ñu ngi daaj laaj leen ñaata parent la seen doom mënatul ñibbi si seen i kër. ndax police mu ngi jaar seeni kër di leen wër laaj leen ñaata parent ñooy dégganteeg seen doom xaaju guddi ba xaaj guddi après c'est fini dootuñu ko dégg laaj leen ñaata parent la seen doom daw dugg Gambie ñii daw dugg Mauritanie ñii daw dugg Guinée Bissau laaj leen c'est combien laaj leen gi gis nga foo demande fan la xeex bi tollu nii. laaj leen gendarmerie police naka la ñuy monté palais ak laaj fan la Macky Sall di fanaan laaj leen Marème Faye lu muy dund moment bi ak Marème Faye Sall lu mu def Macky Sall ba depuis mois de mars il draine énormément d'impuissance et de chose parce que loolu c'est privé ça ne regarde pas l'État Les maladies que draine Macky Sall non ça ne regarde pas l'État si Amadou Sall laay tëjee ndax jabar yi naa faam ay dara ndeysaan <laughs> xale yu am diine. sa grande sœur boobu damay dox ba dajeek moom ndax grand am jëkkëram di mooy sama grand la affaire étrangère yi lay joobee. <laughs> moo tax dama dama dox ba desex ma muy jooy man Mollah gën liñ ko wax ma ne ko non attends attends attends man je connais Mollah man Mollah moom xam naa ne dama koy déglu Gatouso la liñ ko wax li mu wax si magu jabaru amadu Sall nay leer de nay leer rek wax day farankulaay mbaa mu dëpp ñooñu jullite nañ seen baay actuellement mooy actuelle xal xalif bu Njaasaan bu kuntiw bii waa Tëngéej xam ngeen lu may wax ndax yéen ñëpp kunta kunta ngeen bokk Mamadi ma may xool koo tudd tuuram mu saw mbaa mu puub eh, Sénégal moo neex <laughs> vive la révolution ñun ñi tudd nañ ay gendarme yoo xam dañoo daw mais xale yooyu yéen gars yi yéen ñi nekk Sénégal di balancer information yi am na der yoo xam ne am na der yoo xam laa ëpp naa yàq am na der yoo xam booleen leen yàlla moo leen suturaal du ñun surtout jigéen buy sëy kaare ci sëyam bu jëkkëram ñaanal ko non non non non moo tax après j'ai remonté l'information j'ai compris biñ ma passé photo bi ak photo ki ma gis yéen di ca si laa ne heureusement waxuma ci photo ki ñu ne mooy jabaru Amadou Sall mooy magaru jabaru Amadou Sall bi non ak photo ak ki ma gis bokkuñu moo tax des tam gis nga man moo tax vie nii may daw vie privée parce que man rek samay looxoor ak samay toj-toj buñ ko waxoon làmbaay ñaaw waaw waaw lii si nuuru buuc rek te ndey boog boo weeree doomu jàmbur bu ñu la weeree lambaa ñaaw fii kenn mënu fi weer kenn Sénégal lañ nekk bés. Marème fay nag mënul wax ba du ñu wax toj-tojam ndax moom moo jaay bandi lii yëpp ay vie la man je passe l'éponge là-dessus parce que c'est l'état qui m'intéresse bi may yore bëri mais je passe l'éponge là parce que ça ne me concerne pas mais yéen ñi di joxe ci kaw s'il vous plaît rek fa tey vérifiez très bien saa ngeen réussir nag yi vous avez très bien réussi les noms mais jëmm yi ngeen joxe ak jëmm yi bokkul de Fall Fall bokkul de parce que man bi ñu ko waxee sama étonné je les connais mais comme xaalis day soppi nit moo tax ma neutre woon mais comme tey j'ai rencontré l'autre la plus grande ma ne ko mais yow da ngeen ni mu ne mu mukk maa ngi nii maa ngi ba tey sax ma étonné ma ne ah mais on s'en fout gat sa gat lañ nekk ah. gat sa gat sa lañ xeex muñ ci génne jàppale ay gor muñ ciy génnee dimbali ay gor yu dem nëbbatu ci àll ndax lan combat muñ ciy génnee gor yooyu foog ñu génne leen ci sonkorisation bi bëgg bëre bañ bëre boo leen yaakaare ne Macky Sall Sonko yóbbu élection da ngeen nax seen bopp yéen yéenay dem élection ñun ñooy dem élection ñun ñiy gëm projet bi ñun ñiy gëm changement radical du système ñun ñooy dem élection aywa Ousmane Sonko ngi si kaso bi ñaata nit ñoo lompoñ plus de 4 millions ñu ngi lompoñ na la tax ku nekk daal la Sonko nu mu def mbaa mu ngi si jàmm kañ lay génn ayoo kon Sonko lañ tëj wala yéen lañ tëj ñaata nit ñoo am arrêt cardiaque di lekk mun leen lekk gars yi xoola eh. man de du ma leen nëbb matériel laay jënd ak joxe lekk mais fay nit combat moom mënutu mënuma ko te duma ko def matériel nag ak lekk moom carrément dafay mat foo leen munti nekk seen lekk day mat man moom ku ma déplacé sa lekk day mat bu soobee suñu borom parce que vous êtes très efficace félicitations à vous aussi gars yi du wax sax lépp jàppale leen si rek rek ñu jàppale booy yi ndax guerre gi day jeex par force day jeex jàppale leen ñu ñu jàppale booy yi jàppale leen ñu ñu jàppale booy yi xam nañ lu ñuy wax xam nañ makki lu muy pare xam nañ fi ñu jëm. Pape Alé Niang nag du wax ba xotteeku ba pare duñ ko topp suba moom dina waxtaan ak yéen vendredi samedi lu muy def Pape Alé Niang lu mu décidé ne moom la ñuy def moom la ñuy dóor ñun fii samedi diaspora bi on va se décider après on va cinq revenir publier 06 05 59 96 00 mooy sama numéro bi chaque jour comme d'habitude basuma basuma mbara ba si numéro <laughs> kenn du ko di lépp